Boubacar di ab jeune entrepreneur dafa daal di woon tëj butikam bañ a liggéey ngir aar alalam waaye loolee taxut mu mucc. ci ay nelaw lañ ko yee si këram di ko xamle ni butikam lakk na bu mu dawee ñëw fekku fa dara. damaa yeewu moom nii laa yeewu moom dañu ma yee ku ma woo sax xaw ma ko dañu ma woo ma sa place mu ngi tàkk si ay nelaw laa jógee quoi ma ñëw comme nuñ ko gisee nii rek. dëgg yàlla moom mënuma laa wax ñaata laa ci fasunu moo fi ne fi dem bu rek sama facture fii la ne cent mille cent cent cinq mille def na deux ans maa ngi dama ko tëjoon dem di dem foofee ca marché Sandaga bi nag commerçant yi dañoo daal di banque seen loxo toog seen kanamu magasin yi nga xamante ne dañ ko tëj ndax ñàkk pexe genre dëgg ba amee jafe-jafe yi ñu gis ngeen ko mooy yi jànkoonte la ñu séeréer nekk nekkul ñëpp def leen marqué parce que ñu ngi nii laluñu jaayuñu te suñu yoon nekku ci politique guñu suñu yoon nekku ci daal te yàqal nañu vraiment gis nga magasin yi yëpp tëj benn client du ñëw ba pare boo dalee say bagage dañ koy yàq dañu jaar si kawam am ñu ciy raxaale ñoo xam ne dañuy sàcc ñu ngi nii bëgg a liggéey mënu ñoo liggéey xëy toog fii mooy loolu te ko sañoon boo xëyee da ngay nekk ci travail ñun liggéey rek mooy ñor ñu ngi nii nag affaire yi laal na ñëpp wax dëgg yàlla. tey jilee tàngoon na fépp ci ndakaaru fi ci Mermoz jàkkaarloog Auchan bi jàmmaarloo lañ ci nemmeeku diggante manifestant ak policier yi di koy firndeel di image yi ngeen di gis.